ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ministère la santé et de l'action sociale tey bésu alarba ñett fan ci weeru février miñ nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waajalim ci junni ak juróom-ñaar ak juróom fukk ak juróom-ñaari test yi ñu def ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom ñoo ci positif ci positif yooyu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 Touba fukk ak ñaar ci Thiès fukk ñett ci Dakar Plateau ak ñaar ci Diourbel ak Mbour juróom ci Kédougou Pikine ak Tivaouane ñeent ci Médina Mékhé ak Parcelles Assainies ñett ci Diofior Grand Yoff Linguère Mariste Matam Ouakam Petit Mbao Yoff ak zone de captage ñaar ci Mbirkelaan Colobane Géejawaay Koungheul Ouest Foire Passy ak Thiaroye Azur benn ci Amitié 3 Bourguiba Cambérène Dara Daaru Musti de Delorme Gibraltar Grand Mbao Guinguinéo Kanel Kër Massar Xombol Liberté 2 Liberté 5 Liberté 6 Malem Odar Mamel Mboro Mermoz Nioro Pire Rufisque Scat Urbam Sébi Ponty Sicap Mbao Sokone Zac ak Ziguinchor ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-benn malade ñi entré woon ak ñi ñu toppoon ci biir kër yi wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom-benn fukk ci ay malade ñoo nekk réanimation juróom-ñaari malade ñoo ñàkk seen bakkan ba démb talaata ñaari fan ci weeru février bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba senegal wàññi na ñaar fukki junni ak juróom-ñaar ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak ñaar ak juróomi téeméer ak juróom-ñeent ak juróom-ñeent wér nañ si juróom-benn téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak téeméer ak fukk ak juróom-ñaar si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñoo ñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana di ñaanal ñoo ñu des hôpital ak ñi xam ne ñu leen topp ci kër gi ci kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère la santé de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi muy joxe bés bu nekk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 ak jaabante yi nga xam ne du farata ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm